la la la la. teen bi euh, beneen association boo xam ne nekkul fii kenn kenn seen i membre moom moo ko financé def ko fii la mu def ko te yàlla tax mu def ko ci dëkk boo xam ne moom xamu fi du fi mën ñëw naan ndox maanaam du fi mës a naan ndox waaye xam na ne su teen bi bënnee dina soulager dina teggeel jafe-jafe ay nit loolu mooy li ko ci lim bi doon taamu yàlla may na ko ko ndox baa ngi nii bëri na yàlla ko yàlla bindal tuyaaba ci jëf jooju mu def jëf la joo xam ne def na ko jublu ci borom bi subhaanahu wa pour lan mu bindal ko tiyaaba ndax lu ci nit ñi jëriñoo rek tiyaaba la ñeel ko moom mi ko def kon euh, dañuy sant mbokk moom ak association boobu nga xam ne moo nekk suñu diggante ak yéen nga xam ne moom moo leen financé seen teen mu nekk association boo xam ne mën naa ne lépp ci ay téeméer def na ko fii ci Sénégal te amul benn teen boo xam ne ñoom seen ay membre ñëw nañ fi pour naan fi ndox waaye lépp rek pour teggil askan wi ay jafe ñoom it jafe-jafe teggi leen jàqare comme ni ko yéen salom waxee. di gërëm encore projet bi nga xamante ne moo ñu indil euh, teen wala mañu ndox ndox dafa bokk si source de vie boo xamante ne ci développement la bokk bon kooku la ko indil rek bugg na la ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax di leen ñaan yàlla yàlla yàlla faj seen xaajo yëpp lépp luñ soxla si àdduna rek yàlla yàlla jox leen ko. di leen di sant bu baax a baax di wax ne dëgg-dëgg rafetlu nañ liggéey bi dëgg-dëgg kontaan nañ trop mboolem dëkk bi kontaan nañ.

Kontan nañ ci bu baax walu set la wa gërem nañ leen daal lu ñu wara wax yépp ablay ba wax nako ko teen bi ñëwagul mom dañu amoon ay robina waye légui ba tay mëna sakana robina ndek bo fi roté na dal say jur ba tay dana wañi sa euh, feyam robina dal. sakan sakan na poos waaw poos sakan nañ wa sante yalla gërem nañ neex na bari na rafet na taruna na mën na japp man na yépp ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wër yalla na yalla may gudd fan ak wër Ah. ah. Alhamdulillah, ce puits Muhammad Tahar Sourairi est un puits qui a apporté beaucoup de bonheur dans ce village. On le voit de part et d'autre du village, beaucoup de puits ont été, euh, forés, mais ils n'ont pas, pas, abouti, le résultat n'a pas été bon. Nous sommes venus il y a quelques semaines, nous avons lancé ce puits et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, ce puits a abouti à une eau très très abondante juste à côté de la mosquée qui plus est, une grande population comme on le, voit, euh, des animaux. Donc alhamdulillah, c'est un puits qui a, une baraka déjà et qui fait le bonheur de l'ensemble des personnes euh, qui, en bénéficient. Leur témoignage sera plus éloquent que le nôtre. Ceci est juste euh, un petit discours de remerciement de la part de ce frère généreux donateur et de toutes les personnes qui ont pu l'assister dans la collecte de ce don qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, qu'Allah accepte vos dons, qu'il mette la bénédiction, la baraka dans vos biens, vos familles, vos personnes, vos activités, qui vous prête une très très longue vie remplie de, bénédictions et de bonnes actions. Et à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres projets. Barakallahu fikum, au pain et sourire, et l'ensemble de ses donateurs.